dal leen ak ci seen seen youtube bi di H221 TV li gën a fës ci boppum xibaar yi aljuma bu tàng jër lañu nemmeeku niki démb foofa ca diwaan bu Mbàkke ay militant Pastef ak ay takk der li waral moomu leen mbir mooy tere ga ñu leen tere lool ngir ñu amal seen meeting ci boulevard Ndoyen ci loolu nakk ndaw Pastef yi wane nañu ak résistance bu mat sëkk ci mbir moomu nag la ñuy daal di dese li ndax njiital général bi di conseil national de régulation audiovisuelle dakkal na signal Walfadjri ci diiru bés bu ay waaye li waral boomule mbir naka dañoo jàpp ne tasukaayu xabaar bi warul yee fitna waaye itam jàpp nañu ne image yu ñuy doon wane ak ay wax yu tegginewul yi ak nañuy jàllale yooyu information jaarul benn yoon mu mel ni rek Sénéra bëggul lu naqari benn yoon njiitu réew mi di Macky Sall